xamna ñu bari doone laaj Arfan ban taxaw seetlu lay def ci Abdou Abdou mom mënut a ñàkk assemblée nationale di dem gis nañ ko mo daal di dugg si benn li nga xam ne que euh euh au chat et la souris diggante moom ak ki nga xam ne que moo di ay réaction aussi bu maître Tall mu daal di calmer ki nga xamne ko modi Abdou mom naka la koy daal di jàngatee concrètement. waaw Abdou mom Abdou mom sama xarit la yàlla dafa dogal mom il est fait il est né pour l'Assemblée nationale donc Abdou Manna naa a am groupe comment en am base politique à Kies, mais il a toujours été <laughs> député donc au moment de battre campagne il savait que Macky Sall. donc Macky Sall le mu xat-xat le Abdou dina dugg Assemblée nationale parce que amoon na ni que Macky Sall il doit pas il va pas siéger à l'Assemblée nationale Macky Sall doit siéger. Hmm. même bu euh, tête de liste du groupe euh, Takku Wallu mais bu ñu gagné Macky Sall du siéger parce que moom moom lay jox poste bi. Abdou mm. Mbow amoon na information bi. Mm. moo tax ma ne leen wax naa ko fii ma ne bi ngeen bëgg a xañ Abdou Mbow dina si ñam. Mm. mu ngi nii ñam na ci mais moom moo nar a sonn à à l'Assemblée dina sonn. parce que il est suppléant <laughs> gis nga maître Tall lu mu ko fàttali démb. <laughs> moo c'est ça il est député c'est vrai que il est député comme tous les députés. Hein, même le suppléant tey bu fonction il est député comme tout le monde. Mm. mais <laughs> ñom les nañu qui lu koy togné suis manam maître Tall lu ko wax de mu ne ko nopil yow yow suppléant la. moy mm. manam dañ la may poste. Macky Sall moo démissionné pour ñu may la pour yoko pour ne serait-ce que yow nga mëna nek nga mëna député mais Abdou Mbow aujourd'hui il est député sans aucun pouvoir comme nous avons le pouvoir ci 14 législative législatif, en étant président du groupe parlementaire bu aujourd'hui, il est un député simple, sans aucun pouvoir. Mm. Donc, peut-être que moy def différence, euh, de, de, toujours le député qu'il a été, Mom Abdoumbo. Mais, <laughs> man, dama koy féliciter, <laughs> vraiment, Mom Abdoumbo. Loko il a toujours su garder donc, son poste de député. Nous avons dit que peut-être, euh,

donc il a intérêt. non Abdou il a intérêt. non il a intérêt aujourd'hui d'aller d'aller étudier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale hmm. parce que légui ay député xalé ño fa nek ño y xam ba si Abdou n'arrive pas aujourd'hui à prononcer à bien prononcer les articles du règlement intérieur de l'Assemblée dañ koy dañ koy dañ koy humilier. Hmm. dañ koy humilier. Hmm. Moi, tax dégg c'est même Cheikh Bara boo xamante ne amana jàngul français mais il maîtrise bien les articles Cheikh Bara wax na ko ni que yow <laughs> amna le lu mu wax ba ba ko article 106 donc règlements règlement intérieur mu ne ko yow article bobu kessé nga ñemee article Bobu kese ngay tudd parce que article bi da gàtt yow nga gatt <laughs> tu vois raillerie ni ñi toñanté légui à l'Assemblée c'est ce qui fait le charme mm c'est ce qui fait le charme de l'Assemblée nationale mooy maanaam ay tooñante ñi ñuy tooñante mais man tout sauf la violence violence bu amulé assemblée nationale lépp lu mënta doon man bëgg na parce que assemblée nationale aussi day am animation day am ay députés yo xamanté dañuy toog di animer tout ça tout ça Moi, ñu bëri euh, bëgg maître El Diouf quand il était député Mom day ñëw def show di animer di animer di def mm. après bu paré mu dem tok. Abdou Abdou Abdou Mbacké Baara Dolli c'est la même chose aussi day ñëw di animer di animer di def show maa ngi fàttaliku keroog ba muy taxaw ne waa Benno Bokk Yaakaar sama livre ba bind naa le livre rouge ba léegi publié wu ko. yaa ngi fàttaliku. ba muy ne waaw moom manqué na fi nag dem waaw manqué na fi moom moom moom moom moom Abdou Mbacké Baara Dolli manqué na assemblée ah. nationale bi. Ah. parce que j'aimerais bien j'aimerais bien le voir à l'Assemblée nationale Mme Abdou Mbake parce que quand même Il def show quoi. choses. Il y neexal l'Assemblée nationale. Euh, mais sauf que cette assemblée nationale <laughs> caaxaanewul de. Hmm. c'est pas du assemblée nationale caaxaan de. Hmm. assemblée nationale élite là, élite. Hmm. bu am niveau niveau bu Moi, moo ku maîtriser le règlement intérieur de l'Assemblée nationale bien nga dem il faut maîtriser ce petit livre là parce que Boussouba, bo taxawé ci perchoir bi boy wax sax ñi ñi ñi ñi dañuy qui il maîtrise ce qu'il dit il maîtrise ce qu'il dit Moi, tax ñaan sama xarit bi Abdou Mbow <laughs> man mom mom la am daf ma natou man dam ko bëgg Abdou mu dem ce petit livre là, mu maîtriser ko même Cheikh Bara dañ ko maîtriser <laughs> donc Abdou <laughs> il a intérêt aujourd'hui d'aller d'aller d'aller mémoriser ce petit livre là cheikh Fallou alors ñu ngi exactement mom ki nga xamné que modi di euh, Abdou Mbow euh, par rapport ak euh, li nga xamné que modi di wàllu wu mel donc na dem nak mom Abdou euh comme à l'accoutumé toj na fa soxna assemblée nationale bokki yi ñu daal ñëw itam si nga xamné que modi les huit vice présidents yi nga xam ne itam démb fal nañ leen bokku na si ki nga xamné que modi di Ismaël Diallo mu nek premier vice président bi deuxième vice président bi di Roqi Ndiaye troisième vice président.